ñe ci Serigne Touba waa Ndiassane suñu xaali ma jaxate kala dégg nga ko yooyu yëpp li tax loolu yëpp ñu mën ko nag jëflante boo xam ne Serigne bi jëflante na ko ci lu rafet ci seen diggante moo tax ñu def loolu soxna Ndeye Marème macha allah ñu ngi jaajëfal soxna Diarra Ba wax na lu rafet waaye ku ne xam na ne lislaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ko indee koo indi ngir benn le indi ko ngir jubóoleeg daayiratu Hizbut Tarqiyyah na xam loolu ba tax ñu jël ittihaad fas yéene ko yóbbu fi nga xamante ni moom mooy les grandes journées waaye ku ne xam na ne eh, Serigne Touba ak ànd bu rafet bi mu àndoon ak yeneen tarxe yi ko dee toog ko dee wax duñ fi jóg ku nekk xam na ne Seexul Xadim bi muy dem Xaybatul eh, Baxriya dem ba tollu jeewal nee na ñu Serigne Alhaaji Malick moo ko dab ak benn eh, ndab ndaw Serigne Alhaaji Malick moo ko dab ak benn téere nee na bi mu ko dabee Seexul Xadim ne ko Seex waa ji jox ko téere bi Seexul Xadim ne ko boo demee nga santal ma Eh, Cheikh Alhaaji Malick waaye boo ubbee téere dañ ci fekk mooy asmaa u ahli badri mu ne ko boo demee ngeen ko ñii ñi moo jox ne ay jëmmam laa àndal kon nga xam ne xam na si suñu Alhaaji Malick xam ne kii la ñoom di génne laa ilaha illallah nga xam ne dinaa ci dikk tuuti ci diggante diggante boobu eh, macha allah boo xoolee si sëñ sëñ alxaaji Maalik si am na ay xaddi yu mu daan doxate Serigne Touba foofu rek ma dikk ci tuuti pour ñu gën a xam ne Hizbut Tarqiyyah dara gënu ko ñu loolu benn le Serigne alxaaji Maalik si dafa bind benn téere dafa dafa dafa yore benn téere nga jox ko Serigne Touba addiya boole ci ak ñaari bayit jox ko sëñ alxaaji Raw Xaan Ngom pour mu indi ko Cheikhul Khadim ñaari bayit yi dikk na ak si Cheikhul Khadim ak téere bi ma ngi te bind haddiyatun ah, mujibu hatilaabu mahabbatin yaa ayyuhal xubbaabu adaama rabbuna lanaa xablu wasaal wa kuffanaa charu lazi aadal wasaal suñu alxaaji Maalik si may wax nee na Cheikhul Xadim lii nii xaddi yàlla boo xamante ni muuji na ko itte laabu mahabbatin maanaam ñu uh, am uh, mbëggeel ñaar moom moom Cheikhul Xadim ah mu ne ko yaa ayyuhal xubbaabu suñu alxaaji Maalik mooy woo Cheikhul Xadim ne ko yaa ayyuhal xubaab bi la soppe mu suñu alxaaji Maalik moom mooy wax ak Cheikhul Xadim mm. ne ko adaama rabbuna adaama yàlla saxal rabbuna suñu borom yaani diggante bi nga xamante ni dox na ci diggante suñu alxaaji Maalik Mané ak Cheikh Khadim muy ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko saxal ba tey it wa ko fana charlesi adal wasal sëñ Alxaaji Maalik Si mooy ñaanal Cheikh Khadim ne ko yàlla suñu borom yàlla nañu fegal ay noon bi noon bi nga xam dafa jóg ngir tàqale tarixa yi sëñ Alxaaji Maalik ñaan yàlla suñu borom fegal leen noonu boobu waaye Cheikh Khadim te a bind te mu tontu ne ko mm, euh, Eh, macha allah lu mu ko doon doon di sax Cheikh Khady moo tontu eh, ne ko wantu zakir la nal abiyat macha allah dama ko bindul moo tax Cheikh di moo tontu ne ko jazaakum xayru jazal wahaabu wa fii safal widaadi laa tartaabu fa kay falaa wal mustafal mujaabu eh, yaani imaamuna wal xat wal laa nahaabu Cheikh Khady moo tontu ne ko Eh, jazaakum yal na la yàlla fay Cheikh yal na la yàlla fay jazaakum yal na la yàlla fay xayra jazaa ngeen gi fay alwahaab gi nga xamante ni moom mooy ne ko mu ne fa laa man naka laa lay man a bañi man Cheikh Xaadim ndax lan ñoom ñaar ñoo bokk luñ bëgg fa kayfa laa wal Mustafa al mujaabu muy Mustafa yonent bi nga xamante al mujaabu mooy ki yàlla nangu imaamu naa mooy suñu imaam sëñ alxaaji Maalik sëriñ Tuubaa def ne isil murabbi laa yuridu fi muri illal wusula naa jël man mina marit sëñ Cheikh Ibrahima Niass lim namu cib taalibeem Cheikhul Xadim loolu namu cib taalibeem taalibeem kon jàpp naa ni euh, macha bu mu bëggee euh, hmm. yaatal na a doon xam ndax dafa mel a jël temps bi moo tax hmm. incha allah dama <laughs> ci dugg tuuti ndax boo dégloo ñaari sëriñ Tuubaa da xam ne bëgg na bennale bëgg na jubóole moom tamit moom la indi hmm. wajaal xulu bana ala tawaadudi bila tanaazoin laata daal ba béyee jàppam ko temps bi may xam ci biir tarixa yi lay dox mm-hmm. dëkk la boo xam ne ñoo bokk lu ñu gëm mm-hmm. ñoo bokk gëm yonent bi sallallahu taala alayhi wa mm-hmm. waaye ñoo bokk tamit gëm benn góor bi kon mel ni ki thème bu yaatu la boo xam ne incha allah dinañ ci dikkaat dëgg la soxna Ndeye Maré macha allah ñu ngi lu wax ji mu mel ni loolu rek la Hizbut Tarqiyyah daal di euh, comprendre ba tax na grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba bàyyiwuñ kenn ci biir réew mi moo xam tarixa boo mën di jógee isbu tarxiya sol na dàllam fekk la ba fa nga nekk mu yëgal ko te xam ne ñun ñoo bokk diine ñoo bokk yàlla bokk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba tamit ñun ñëpp ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo Serigne Touba dafa yaatu te képp koo xam ne dangay def dara ngir jë jëmal ko ci Serigne Touba yaatale rek moom moo la war eh, kon eh, sëñ Modou kebe eh, dañ lay daal di dé jébbal kàddu gi bu ko defee nga daal di continuer waxtaan bi bu ko defee ñu daal di wéyal li nga xam moo di émission bi jërëjëf euh, soxna Awa sa gan ñi yaakaar naa thème bi ñu indi tey am na euh, solo lool euh, man su ma sañoon dama leen di bàyyi rek sax ak kàddu gi ngeen jeexal émission bi ndax thème la boo xam ne si bu ngeen ci duggee wax dëgg yàlla mënees na ci xuus lu bëree bëree bëri def ci ay émission ay émission lii day wane rek yaatuk sëriñ bi waaye day wane it li nga xam ne si rek maanaam mag ñi bennoo woon nañ ko seen biir mahabba bi amoon seen di seen biir waaye it weccalante gi nga xam ne si doon nañ ko weccal ak demlante gi nga xam ne si doon nañ ko demlante kenn ku nekk amoon reconnaissance maanaam yëg sa morom waaye xam tamit li nga xam ne si moom la ko suñu borom may ba pare nangul ko ko loolu yaakaar naa moo feeñ ci seen waxtaan yi wax dëgg yàlla euh, soxna maam jaar li mu wax am na solo trop euh, soxna nday marem tamit euh, li nga xam ne si indi na ko wax dëgg yàlla di firndeel rek loolu ni sëriñ bi moom kenn suñu borom la maanaam suñu borom moo ko wàccee ngir li nga xam ne si mooy nit ñëpp du mën a jullit ñëpp waaye nit ñëpp lil alamin la ko wàccee mu nekk ndimbal loo xam ne si wax dëgg yàlla daf ko wàcceel ñëpp te loolu it ñi nga xam ne si ñoom la jamono del yaakaar naa naa sa gan yi wax nañ ko ñoom ñëpp ku nekk rek nangul na ko loolu loolu kon di am lu am solo euh, sëñ Lamine Diouf xay na bu fekkente ne rek tam bi may dama ko dana ci dellu dellusiwaat euh, ci bu gàtt rek waaye euh, ma dem ci sama gan gi nga xam ne si moom laa waxoon la sànq ne moom laay fas yéene dal muy Serigne Mamadou Ndiaye Ngédiane Serigne bi gannaaw bu ma la nuyoo ma bàyyi la rek nga nuyoo ñu soog dugg ci waxtaan wi. kon ginnaaw bu ñu sant yàlla julli yonent bi alayhi salaatu wa dañuy dellu sant Serigne Touba Xaadim Rasoul mm-hmm. waaye di sant maam Cheikh Ibra mm-hmm. di nuyu waa bi yëpp di leen siyaare mm-hmm. di leen jaajëfal ci taxawaay bi ndax taxawaay bi taxawaay bi lislaam la waaye nag taxawaay bi liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasoul la ak mag ñi fi nekkan ñëpp di nuyu Serigne Sidi Maxtaar mi fi nekkal Serigne Touba Xaadim Rasoul ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér te sama borom yeggaleel ko ay yéeneem ci liggéey bi muy liggéeyal maamam di nuyu itam sëriñ Cheikh Jëmb Fall sunu sang sunu sëriñ te yebal nu fi ci jataay bi nag it nu koy siyaare lool di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal waajuram ba Cheikh Moudou Moussa Fall mu liggéey ko ak maam Cheikh Ibra Fall mi mu toogal di leen jaajëfal bu baax a baax. Euh, jërëjëf Serigne Mouhamadou Ndiaye euh, ngi jaan euh, Serigne bi mu mel ne rek li nga xam ne si Hizbut Tarqiyyah woote na ko muy ñetti fan Dakar yi ñu jublu ci rek sant sëriñ Touba waaye it fàttaliku ci li nga xam ne si rek mooy taxawaayu Hizbut Tarqiyyah boobaak léegi mat ñeent fukki at ci li nga xam si mooy yoonu murit mu doon ay ndaw yoo xam ne ña nga woon université doon fa jàng suñu borom xëcc leen yàlla xëcc leen boole leen ak ki nga xam ne si mooy Serigne bi wala Serigne bi xëccal leen boppam dugal leen ci boppam ñuy taxawal loolee mu nekk lu dëgg ci ñoom di wéy ba ñeent fukki at te yaakaar naa ñeen fukki at euh, lépp lu ko am rek euh, ci du ay caaxaan euh, tey ñu woote li nga xam si mooy ñetti fan yi Ndakaar yi parce que yéene feete fa nga xam ne si mooy Ndakaaru ñu boole ci ñëpp nag maanaam li ñuy wax fédération amul kenn koo xam ne si rek bàyyi nañ képp koo xam ne si yaa ngi ci diine ji rek wax dëgg yàlla woo nañ la ne sax yaa ngi ci geneen diine teewul woo nañ la maanaam dañoo yaatal yàkkale ba mu yaatu ndax Sëñ Bàmba mbiram noonu la mu mel ne tey ñi nga xam si ñooy Baay Faal yi kenn dem ñu des te ba ñu wootee it yaakaar naa ci ñi njëkk woo lañ bokk ñi ci njëkk a wuy si ñoom eh, ci la ñu bokk euh, woote boobu yéen bi ngeen ko jotee eh, naka ngeen ko ak a yiira maanaam naka ngeen ko euh, naka naka ngeen ko dalale daal maanaam. waaw laaj nga lu am solo de. Mhm. woote bi nun ni ko gisee. Mhm. bi ngeen solee seen daal ñëw ci suñu kilifa sëriñ seex Jëmb Fall wax ak moom. te mhm. ngeen yàgg sax seq ay jëflante. bi ngeen yittewoo li ngeen yittewoo ak seen biirub liggéey itam wax ko sëriñ bi itam dafa tànn ñeñ ñenn ci ñoñam mooy daayira sikrullahi bi nga xam ne dafa ne ci biir kër gi tey taxawee liggéeyab sëriñ bi mm-hmm. te fu ñitt yitoo ñu tudd yàlla ñu jóg yëkkati kàllimaatu laa ilaaha illallaah boobu ñoo ngi la sëriñ bi tànn yebal leen fii mm-hmm. mu mel ni tey bis bi bisub émission la ci télévision bi mais nag. Mhm. am na message bu ngeen bëgg a jàllale. dëgg la mhm. te boobu mooy ban. Mhm. mooy bu Tarqiyyah dafa nekk mbooloo moo xaye dañoo yàgg a sol seen daal di liggéeyal Serigne Touba mu sosoo woon nag ci sowu jant Ndakaaru. dëgg mu dem ba làq at yi mu làq nag. li ñuy wax journée journée culturelle nga xamante ne da ngeen a bëgg na dellowaat fa ngeen sosoo woon mbir ma nag. muy dox nag ba ñëw tuubaa mhm. ba ngeen liggéey ci li ngeen liggéeyal sëñ Touba te àdduna bépp nag teg ci bët. nga xam ne liggéey boobu itam ba ko loxo làmbee daj ko. Mhm. fa ngeen ko sampe woon nag. Mhm. ngeen bëgg faa dellu nag ca bokk ya ak ña ngeen ko bokkoon samp ko nag. xam leen ne kat kuy liggéeyal sëñ Touba. sa doole fii la war a toll. sa taxawaay fii la war a toll. te lii la sëñ Touba di fayee. ngeen bëgg ko woon waa àddina kon daa mel ne loolu mooy dem gi Ndakaaru. dëgg ne loolu sax mënoon nañ koo defee tubaab fi ndax am ngeen fi baas. Mhm. ba man ngeen fee accueillir bis bi. dëgg la waaye nag mbir boo ko tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahim. Mhm. di dox suñ borom di la ca fekk ak ndimbalam ak yërmande suñ Touba ma ngeen di liggéeyal. Mhm. ngeen dem ba xam ne àddiyeen Hizbut Tarqiyyah kat ci àddina ab ab liggéeyam lii nii nii lay doxee. dellu nag fa ngeen ko jël cosaanoo woon nag. wanaat leen ne kat kuy liggéeyal sëñ Touba nii la war a mel. nii la ko àddina yi wuyoo. nii la ko sëriñ Touba di jàppalee. bokkook bokk ya bokkook soppe ya ak am di jàmm ak ñi ci bokkoon ñëpp. Mm-hmm. kon bis bi lu war la. waaye sëriñ bi dafa wax ne. Mm-hmm. seenu doxande rafetlu na ko lool. ndax li tax mu rafet lu ko. moom dafa jàpp ne. Mm-hmm. fu waay nekk ci àddina tey liggéeyal sëñ Tuubaa moom nga ko dimbalee. ndax Cheikh Rafal kat. wax ne ni li ko tax a ñëw daaru duniyaa wan jaami yàlla yi sëriñ Touba jëmmam ji ma gis ko ba mën a jariñ ci moom. ak liggéeyal ko. loolu nag bi mu ñëwee moom la wan jaami yàlla yi. bi mu ñëwee ba jaayanteeg moom ba Serigne bi nangul ko jaayanteem. dafa sax ci di ko liggéeyal ak lu mu am ci alal jox ko ak njabootam. kon loolu ko gis ne. yoon la woo xëyee aw yoon la te ko aw di nga jëriñu. kon dafa mel ni loolu Cheikh Rafaal wanoon jaam yi te nekk ci. Mm-hmm. bàyyi ci ak njabootam. Mm-hmm. képp ku ci fekk ku nekk Cheikh Rafaal ngay dimbali. moo tax bi ngeen ko waxee sëriñ bi itam mu jàpp mbooloo mi mu jàpp nag yónnee leen fi pour ñu def benn témoignage ci mbir moomu xam ne yéen kat da ngeen doon liggéeyal sëriñ Touba. waaye nag di liggéeyal maam Cheikh ak mag ñi nekkan ci kippaar ak sëriñ Touba gi loolu moo tax bu ngeen woo kilifa yi. Mhm. pour ñu ñëw bokk ak yéen liggéey bi. Mhm. loolu dana mën a jàppandi tey dana rafet. dëgg la dana jàppandi dana rafet ñuy sant rek bu baax a baax ci eh, li nga xam ne si indi nga ko ci wax dëgg yàlla eh, yéen it wane rek ne maanaam mbir mi seen mbir la eh, te it jël ngeen ko te ko Baye Fall ko nekk xam na ko lu muy dugg da ci dem ba jeex takk bés bu set ñu wane ko mu mel ne sama naataangoo soxna Awa Sarr moom it am na rek laaj yoo xam ne si bëgg na koo laaj nga leeralal ko bisimilah soxna Awa sama gan gi fekkee am nga laaj yoo koy gan gi di ko uh, ziar. Mhm. man nag uh, li ma ko bëggoon laaj rek uh, ñaari question laa am bu njëkk bi mooy. Mhm. ñoom Baye Fall yi lan lan mooy nekk seen participation ci grande journée culturelle Cheikh Ahmad Bamba yi mhm. ci ban anam ngeen ci ma bokkee yéen. waaw ñoom de niñ ciy bokkee. xam nga ne tàmbali nañu. dëgg la ndax. bi ngeen ñëwee seen kilifa woo woote di yëglu bis bëgg ne bëgg ngeen fee ñëw pour ñu laase ko. sëñ bi leen koo nangul. jox leen mbooloo. kon loolu lan tàmbalee. dëgg la amaa nag li nga xam ne moom la cee bokk ca bis ba nag. loolu nag buñ ca yegee nag. Mhm. fuñ nu ci féetale dinañ ci jox ba suñ kàttan jeex incha allah. dëgg la <laughs> jërëjëf uh, soxna Awa pare nga wala dese na benn. waaw uh, sama beneen question rek. moo di ndax fi mu toll nii dañu jëm ci boole julliti Sénégal gépp nag. Mhm. Uh, te ci boole googu nga xam ne ci lañ jëm ca ci la nekk. Mhm. bokk na ci li nga xamante ni ne dina ci am rôle bu mag boo xamante ni ne grande journée yi dina ko ci joué ndax gis nga tarixa yëpp ñëpp lañ ci boole. Mhm. Baye Fall yi itamit ñoom loolu nan lañ ko gisee ak nan lañ nar a duggee. waaw foofu moom Baye Fall ni ñu ko gisee moom moom boole julliti yàlla yi loolu moom dafa mel ni farata la sax du sunna. dëgg waaw ndaxte. nun de Serigne Touba mi nga xëyee mooy sunu bunt. Mhm. ci diine lislaam mhm. moom da yitteem. Mhm. jëpp jëpp mi ngi ko joyet ci yërëm jaam yàlla yi. moo tax bi mu demee ci tukkeem bi nga xamante ne tukki bu mag la ab tukki féetewul ko kaw ba mu ñëwee la mu njëkk a wax ir am jami alwara la wax kon kooku amul kon xeej ji ak seen ci maanaam yërmande borom bi tabaaraka wa taala yi nga xam ne yoroon na ko jaamu yàlla yi ndax dañoo musaaka daa wax ne mhm. mooy xaadimu rasul vi zudaaniya waaye mooy ramu xarnu bi ànd niiraani kooku kon amul xeej ak seen kon ñëpp yërmandeem jooju nga xam ne la ëmb mhm. bëgg koo tasaareel yàlla ci kaw suuf mhm. kon loolu la indi woon kon mboolem ñi ko topp itam. Mhm. li sañ bi bëggan ci loolu rek loolu la ñu bëgg. dëgg la Cheikh nag moom. Mhm. dafa nekk koo xamante ne ci biir kër sëñ Touba. Mhm. li ma leen waxan sàng rek loolu la. moom ci tubaa la tàmbalee ci lay yem. ku ko ci woo dana la wuyu. defe naa loolu nga doon laaj. la <laughs> euh, ñu waaw. Euh, euh, kon euh, jullit yi nga xamante ni ne jullitu Sénégal yëpp dañu mm. la ñu bëgg dajale ñu doon benn comme ni ko sëñ si di Maxtaar waxee rek mm. ba mu fi nekkee ba mu ñëwee nekk ci xalif eh, xilaafa gi mm. la mu njëkk a wax moo di bëggatuma dégg ti kii nu mu tuddati bëggatuma dégg ci euh, murid la tijaan la et ainsi de suite noonu noonu euh, ci loolu rek la question bi doon duggee waaye mel na ni waaw nga dellu si waat ci rek bu fekkee ne dafa leerutoon ci sa bopp ah waaw foofu leer na ci sama bopp sax hmm. ah, waaye benn jullit yi loolu moom dana xam hmm. ndax Sëñ Tuubaa moom bi nga xamee ne dafa wooteel yàlla hmm. tey liggéeykatub yonent bi moom yitte woon na ak bennoo dëgg la surtout rawat ne ñi nga xamante ne lislaam moo leen ñor dëgg la boo demee Tiwaawan tam noonu la ko maam Alaaji Maalik bëggee dëgg la boo demee Njaasaan tam noonu lañ ko bëggee kon nga xam ne kon ñun ñi nga xam ne dañ ni topp ñooñu te yaakaar ñooñu te yaakaar na ñooy suñu gidd kon ñoom li ñu bëgg loo rek la ñu war a bëgg kon as is eh, eh, is bu tarxee bu jógee sol aw dàllam uh-huh. di dox ci loolu uh-huh. yaakaar naa dina ci am ndam ndax fu mu ci man di dem uh-huh. bu wootee ci bennoo boobu bëgg ndax loolu sëñ Sidi Muxtaar moom bi mu tooyee loo rek la wax bëgg jullit yépp bennoo nekk benn xam ne yàlla mooy suñu yitte ci leen jëm yërmande dem leen yitte woo te it nun suñu bunt ci yërmande jooju mooy sëriñ Tuubaa kon bëgg na jullit yëpp nekk benn. bañ a xuloo ah. bañ a sàpp bañ a séparé woo. Mm-hmm. bañ a def yan lu ñu indi ak noonu. kon bu fekkee nun nun nun nun nun li ñuy digal ñuy xaar ci kaw suuf. Ah. mooy digalal sëñ Touba. te loolu nun sëñ Touba noonu ko digal. ndigalal sëñ Touba loolu nag damaa defee ne. Mm. moom la Hizbut Tarqiyyah bëgg a jëfe nag. Ah. wan ko ni ñu gis nit ñi gis nañ ko sax ndax mi ngi dox fi mu nekk nii. Mm-hmm. ndax boo xoolee ci yii jamono. Mm. li nga xam ne boo nee am murit mbaa ab tiijaan hmm. mbaa ab layen mbaa ab xaadir mbaa ab ibaadu hmm. boo xoolee xel yi ak xol yi ak jubluwaay yi hmm. mel na ni benn rek la dat na nag wax daje yi ñu daje nag di ci wax nag di di tooñante yooyu lool lool loolu mbir mu ndaw a ndaw la moo xëyee demul fenn rek waaye ñoom benn lañ mës a nekk te duñu mës a nekk ñaar mukk dëgg la euh, ma bàyyi la nga continuer. dëgg la euh, jërëjëf euh, soxna Awa yaakaar naa euh, suñu gën gi li mu tontu leer na nañu ci li nga xam ne si mooy laaj yi nga xam ne moom nga indi woon damay delluwaat rek ci la nga xam si mooy kuréel ga waaye balaa boobu dinaa jox rek sëñ Lamine mu barkeelu ci rek ci lu gàtt gàtt sëriñ bi ñu di la sant bu baax a baax daañu dellusiwaat ci kanam suñ mu mel ne li nga xam ne si mooy Baye Fall yi am doole loolu wax dëgg ci li nga xam ne si mooy yoru ma doon dégg rek genn kilifa Baye Fall muy wax ne Baye Fall lu muy taamook lu muy kii fu dañ koy diri rek fu ñu ko diri jaaral fu ko sëriñ mbir jaarale ko rek nee na moom foofu lay jaar kon yaakaar naa bennoo gi bu ko Serigne Sidi Muxtaar euh, wootee te ñoom euh, ndigal rek la ñuy wuyu la ñuy déglu euh, moom ñoo daanaka ko murit yëpp rek ndigal la ñuy la ñuy la ñuy déglu Serigne bi woote ak bennoo yaakaar naa kon ñoom ñi nga ca biir kon noonu la ko waxee muy li nga xam ne si rek tontu na ci laajub soxna Awa Sarr bi ma bëggoon rek nga dellu si ñu tuuti rek ci li nga xam ne si Serigne Mouhamadou Ndiaye wax na ko. dëgg la ñu koy ziare bu baax Serigne Mouhamadou Ndiaye di bég lool ci bokk moom jataay bi mm-hmm. kaddu yi mu dama koy dëggale kàddu yoo xamante ni. Mhm. Euh, maam Cheikh Ibra moo ko waxoon. te nee nañ waxtaan la woo xamante ni ci ngébb la ko doon defee. 1922. Mhm. Mhm. ginnaaw boo xamante ni El Hadj Malick si wuy ji na suñu borom. dañoo wax ne dafa am ku ne waaw tarixa bi nag moom ku koy yor. mu ne leen ñun de dikkuñu fi ngir maasale ay tarix. sëñ Tuubaa li mu fi indi woon lislaam rek la te loolu. mooy li nga xam moom la ñu jëfee. te muy lu am solo loo xam ne soxna maam Diarra dafa indi lu bari wane sëñ Touba diggam ak ñi nekkoon fii. Mm-hmm. niñ ko seerelee ci lépp ak ci fànn yëpp. ba dara desu ji. Mm-hmm. waaye ngir dëggal li sëñ Mouhamadou Ndiaye wax. Mm-hmm. jéggi na Sénégal ba jàll feneen. 1925. ci makkatal mu karam. délégation ñoo jóge mu Munawar. ginnaaw bu ñu amee jaaxle gu rëy. ci song goo xamante ni wahabit yi dañ koo song nedd toj barab yëpp. songu Makka ak dëkk yu ko wër ba jubal Madinatul Munawwar mhm. ñu dugg xalwa ilimaan yi noddukat yi mhm. ñooy taxawu jàkka ji mhm. ñëpp daje suñu borom wan leen ne leen kii saafara seen jàngoro ji mooy liggéeykatu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ca sowu jant la nekk ñu bind seexul xadim bata bataaxal boo xamante ni mi ngi fi am wax ko seen jaaxle bokk na ci liñ ko wax ne ko nattable ne yaay liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi di kilifa mboolem tarix yi jëm ci suñu borom yëpp. Mhm. di njiital murid yi. adresse boobu lañ ko nekkoon ñu ngi ci jaaxle gu tar. Mhm. bëgg nañu ko ñu xettali. Mhm. sëñ Tuubaa ne leen fay naa ay wi fii ma toog. bindi ñaari xasida jox leen ko. ne leen ku ne war naa am jaaxle bu mu des yéen ndax Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngeen dëkkaale. kon mooy seen maam kon nag kooku tey bu ñëwee ci loolu. bu ñu doon jël séeré yi dana gën a weesu loolu kon ñu xam ne loolu euh, loolu rek mooy ittee moom sëñ Tuubaa dëgg la loolu rek euh, mooy ittee moom sëñ Tuubaa kon euh, mbokk yi ni ma leen ko waxee woon léegi rek dañuy daal di nag jël fi nga jàllaat fi nga xam ne si rek mooy kuréel gi suñu mbokk Baay Faal yi waaw kon dañuy dem régi te ñëwaat grande journée culturelle, cher Ahmadou. Allah, la la la la la la rasulillahi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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulillah la ilaha illallah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 lala yàlla lala yàlla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 yaa rasulillah laa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 laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah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 bay baal illa laa faal yàlla yaa di buur di borom te yàlla laa grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf euh, suñu mbokk baay Fall yi yaakaar naa euh, zikar soosu wax dëgg yàlla daw euh, na yaram dugg na ci xool yi te tey boo gisee ni ñu koy jàngee ñu ngi nga xam ne lii. lu ñuy tibbe rek la euh, ci euh, seen euh, biir xol suñu bokk Baay Faal yi nag di ngeen gis liggéey boo xam ne si liggéey bu rëy lay doon ñu nar ko apporter rek nar ko dolli ñoom it participer ko ci li nga xam ne si rek mooy grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba yi Serigne Mouhamadou wax na ko fii léegi nee na bu ñu demee fu ñu leen féetale rek daañu fa féete te it lu ñu leen cërale it danañ xam ne lii mooy seen cër te dañ bay seen waar ba mu mat sëkk yaakaar naa loolu lu am solo la ab sas la ci ñoom waaye yaakaar naa Baay moom sas la baaxoo waaye sas boo leen sas rek incha allah daañu ci am ndam ndax loolu la leen Cheikh euh, liggéeyal moom la leen bàyyeel euh, ñu mel ne rek suñu mbokk jigéen yi soxna Awa euh, sa gan gi am na ñoo xam ne si rek bëgg nañu barkeelu ci li nga si rek mooy zikrulaa bi <laughs> waaw mu nekk zikrulaa boo xamante ni am na solo soxna Ndeye Marème nag moo bëggoon a yëgati ay kàddu rek yoo xamante ni ne dina ko commentaire ci zikr bi nga xamante ni suñu mbokk Baye Fall yi moom la ñu def sànq soxna Awa macha allah zikr bi dama ciy jàngate muy benn da ngay dégg ne dañuy tudd laa ilaha illallah te ku ne xam na ne alaa bi zikrillaahi tatma'innul xulub ci zikrullah ci tudd yàlla la xel yi di ci la xol yi di dale ndax xol day xumaak waaye nag tudd yàlla day bokk ci li nga xamante ne si moom moo koy liimiwaat ba mu ba mu ku ne xam ne tamit nga xamante ne day liimi xol waaye alxuraan beneen xeetu zikkar la ku ne xam ne alxuraan moo ne wazkurullaha zikran kathiran wa sat bukratan wa asila kon zikkar ndigal la loo xamante ci biir alxuraan la jóge beneen bi ma ci seet nga wa malaikatahu xamante ni ñoom ñooy ay jaam dañoo war a continuer di julli ci ki nga xamante ni moom mooy sallallahu taala alayhi wa sallam muy am solo jàngat naaj lu bare bare waaye di jaajëfal Baay Faal yi bu baax a baax di rafetlu seen liggéey ndax di leen jaajëfal tim ci sëxru ramadan bi nga xam moom la génn ku xool xam ne koor gi liggéey am solo ñu ngi naan borom bi subhanahu wa taala Serigne ne leen gën a gëstu te bàyyi leen xel li nga xam te ñu ngi koy liggéey yàlla nañ ko gën a gis barke Cheikh Khadim macha allah seen liggéey ñëpp a ngi koy rafetlu sëñ Bour Kébé kon ma bàyyi la ñu wéyal li ni moo di euh, émission bi jërëjëf euh, soxna Awa euh, jërëjëf it euh, soxna Ndeye Marème moom nga xam ne moom nga dalal li mu wax am na solo lool wax dëgg yàlla mbokk yi dañuy jaay di rek jàll ci li nga xam ne si rek mooy suñu mbokk yi nga xam ñu ngi ñuy topp ci Facebook bi ak ci Twitter bi doon naa ko wax léegi ba joxe woon ne képp koo xam ne si rek bëgg nga am loo ci sànni wala laaj boo xam ne bëgg nga koo laaj rek boo demee ci hashtag xam Twitter mu ci mën a doon rek soo dugalee sa laaj daañu ko tontu boobu nag ci la ñu toll dalal ci rek ki nga xam ne si mooy Abdoulaye Diagne mu nga xam ne si eh, jot na fee ruusandi eh, sëñ Ablaye eh, yan ba ginnaaw ma la nuyoo ba pare sax yan laaj rek ñoo fi jot a ruusandi suñ mbokki internet yi ah, waaw jërëjëf sëñ Modou Kébé ñu ngi lay fay nuyoo di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ni dégg nag mu yàgg fukki fan ak benn ci tey ñu ñuy kar ci seen antenne bi tudd antenne quotidienne des grandes journées culturelles di wax rek ni safoo bi ngeen di safoo li ñuy def mhm. daf ñuy ñaax di ñu yokk jom ba tax na lu ñu ci defoon benn rek dinañ ko ci gën a dolli dinañ gën a baral jéego yi mhm. ndax xam nañ ñi fi ñu toll nii nag grande journée culturelle bu doon aw xaal la mën nañ ñu ngi ci xaaj bu mujj bi mhm. xaaj bu mujj boobu nag tax na nag ba lépp loo xamante ni si yeesees la rek di innovation wala loo xam ne dana tax ba li ñuy def ngeen gën ko bëgg duñ ci ménager benn effort mm. du doole du effort beneen amul daal leen loo xam ne rek jàpp nañu war nañ ko mën a bàyyi mm. en direction des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba di leen wax rek ni mm. hashtag bi moom ci Facebook ak ci Twitter rëpp benn la sëñ Maodo Kébé wax na ko léegi xaadimu rasulillahi la di wax rek ni ñi nga xam ne ñooy safoo liggéey bi bari nañ dañ ciy jukki ñenn rek ku ñuy wax Ndeye Soxna jaañ nee na mu ngi def li mu ngi ñu ngi mu ngi mu ngi bëgg bu baax a baax li nga xam ne ñu ngi koy def di ñaax équipe bi nga xam ne ñu ci liggéey ak ku ñuy wax Baye Cheikh Sall baabu Seydi Youssou Diop ak boole Thiaw Soxna Diagne tamit ci ñooñu la bokk ak ku ñuy wax Cheikh Tine ak Bassirou Dieng ak Cheikhul Khadim Diop ku ñuy wax Lamine Diop ak Mamadou Xaban Jaxate ak ku ñuy wax Diop Salim Ndiaye ñoo ne ñu ngi safoo baax a baax li ñuy def ki ñuy wax Famara Sène moom bind na waaye dafa ne rek moom daal saa bu 10 jotee mu ngi taxaw ci écran am di seetaan li nga xam ne mooy grande journée nee na du ko wute seen saa ñu jëm rek xanaa ci laaj yi nga xam ne nag dafa yitteel internet yi ndax daanaka boo xoolee nee naa xaaj bu mujj bi mm-hmm. daanaka bu ñu dem euh, ñoom it dañuy gën a ñuy teg seen tànk ba bu ñu demee du am benn gàllankoor mm-hmm. sëriñ Mbacke lay Touba Daaru Minam pencum Baye Wade mm-hmm. la ñu waxee nee na moom euh, moom daal moom kenn rek la mm-hmm. dafa bëgg dem naka lay demee ak buy mm-hmm. demit nu ñuy waaj ndax nee na bokkul ci benn daay daayira te dem yi yitteel na ko nu muy demee ak kañ lay dem waaw ku ñuy wax Xaadim Dieng Touba Daaru Minam moom tamit nee na grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba yi ndax yéen ñi ci plateau bi ak ñi nga xam ne yéen ay comité de pilotage bi ndax jàpp leen ni nekk na occasion boo xam ne Hizbut Tarqiyyah ak Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos war nañoo collaborer lépp rek ngir mën a liggéey loo xam ni dana feeñ dana fos bu baax a baax ba tey it moom Xaadim Diop Touba Daaru Minam boobu tam beneen laajam muy ñaareelam nee na rek li mu seetlu mooy invitation yi mu jot ak ñi muy gis ñu yor invitation ñu bari stade Demba Diop la ci spectacle bi. Mhm. ci festival bi nee na invitation yi daal remarqué na ni stade Demba Diop bari na ci trop. Mhm. ndax bàyyi nañ xel ni stade bi dafa am place bu mu war a mën a jël am na néew nombre boo xam ni du ko mën a weesu. daayira Mafaatihul Bichri ñoom nee nañ moom ñu ngi safoo bu baax a baax li ñuy def waaye nee ndax am na kaar bu jàppandi ci ñoom ndax mat nañ lim te jàppaguñ ñu mën a demee ndax euh, buñ bëggoon dem am na kaar bu jàppandi ci ñoom. Mhm. Euh, ki nga xamante ni si nag moom dafa yóbbante ab yóbbanteem moom nee na préoccupation mooy mm. antenne quotidienne bi kañ lay yem ba xam day wëy ba grande journée wala jàppal ngeen ko app boo xam ni fa la war a yem mm-hmm. ki nga xam ne nag moom mooy Mame Diarra Bousso Diagne Dakar la ñuy bindee mm-hmm. nee na King Fahd Palace ci conférence inaugurale bi nga xamante ne si moom mooy ubbi officiellement les grandes journées mm-hmm. nee na bu weesoo officiels yi di kilifa yi nga xam ne dañuy ñëw di ay hôte de ndaxte waajal nañ fu grand public bi war a ñëw kii ba accéder kan moo mën dem gannaaw koo xam ni nekkoo officiel nekkoo ab kilifa laaj yooyu lañ amagum nag laaj yi dañoo bari mais yu ci bari laaj dañoo bari waaye waxtu wi nag mayuñu ñuy ñu fàttali spectateur rek ni leen waxtu ak xaaj rek daanaka lañ am buñ ci boolee si kar mi wala njàng meeg yeneen yi daanaka tontu ci laaj yëpp du mën a ñëw képp koo xam ne rek sa laaj mm-hmm. dafa dikkul xamal ni sunu préoccupation mooy fexe ba fépp foo xam ne nit nekk na fa di seetaan almouridiya préoccupation boo am ñu jël ko dëgg la nag li olof di wax daanu dafa dajul suuf dëgg la daanu dafa dajul suuf ñu di ko sant bu baax a baax rek euh, Serigne Abdoulaye Diagne mi nga xam ne moo ñu nekkal ci réseaux sociaux yi euh, moo réalisé mooy réalisé émission bi nga xam ne si mooy antenne quotidienne loolu tax laaj bu njëkk bi man ci moom laa koy dellool pas laaj bu njëkk bi mais ñeenteelu laaj euh, bi nga xam ne rek ñu ngi wax ne antenne quotidienne bi ndax après grande journée yi dafay continuer ah waaw waaw ah, sëñ Modou Kébé maanaam sunu xol du neex ci tàggoog téléspectateurs yi waaye nag ah, mbirum liggéey bi moo demee noonu ndax waa Dakar dañoo war a jël seen wàll di def li nga xam ne dañ koy tuddee ah. euh, journal des grandes euh, des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba du ma sax anticiper ci seen liggéey waaye bokk na ci prérogative bu rédaction ñoom it ñu wane fi ñu mënee ci wàllum xibaar ak lépp loo xam ne dana ko yaatal kon nag ñu ngi leen di wax euh, nii grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba antenne bi ñu ko waajal te bés bu ne ñu ci ñëw ak waxtu ak xaaj dina fi yem nag suba nag euh, dëgg la annoncé ah, annoncé tàqalikoo dafa ah. metti waaye nag noonu la ko yàlla dogalee ñu ngi jégalu bu baax a baax di ñaan rek beneen yoon rek ñu gën dàbbali ba ngeen gën a bëgg dëgg la waaye bu antenne bu bu grande journée yi jàllee euh, ñu xalaat rek beneen émission boo xam xam naa loolu dañ ci ñëw euh, ak maanaam daanaka dana rek retrace ndax lu mel ni public bi dañ ko soxla bu baax ndax da ngay gis réseaux sociaux yi nit ñi dañoo bind bind doo mën a jël lépp ay ñeent wala juróom rek daanaka nga ciy jukki ngir liir ko wala jàng ko bokkut ak ñi nga xam ne si ñooy safoo bi wala ñu bind wax ne maanaam liggéey bi ñu ngi koy safoo ñu ngi koy bëgg wax dëgg yàlla loolu dafa am loo xam dafa nekk loo xam ne si lu am solo la yaakaar naa a baax gën cee wax dëgg yàlla ndax ñoom rek eh, leen te it eh, wax dëgg yàlla eh, ko rek indil ci seen télévision Al Mouridiyyah naa dégg nga laaj yi nga xam ne si sëñ Ablaye indi na ko ci suñu mbokk internet yi ñoom it ñu di ko laaj fu yi nga liggéey bi mm-hmm. ak euh, seere yi am solo yi nga xamante ni gis nañ leen ñu def ko ci euh, bu dee nag wàllu départ individuel yi am na ñoo ko démb itam bi ñu dajee euh, tey rek ci ndey mi nga xam ne ñu ko doon def gédé dégg na si amul sit seen wax ne suba incha allah ci di heures am na beneen réunion boo xam ne mi ngi am kër Cheikhul Khadim bu dee fii ci Touba la ndax ñu wax daal moom lañ ne ñu xam ne foofu barab la boo xam ne incha allah buñ fa demee des na leen fa mën a bind ngir ñi nga xamante ni dañoo bëgg a dem euh, daawam faati Bichri itam mm-hmm. ñu xam ne ñoom dañoo war a ñëw foofu ci kër Serigne Touba gi mm-hmm. bind fa mm-hmm. ndax fi mu ne ni ñu ngi defar liste yi te bi ñu ko xoolee takku na lool bind gi ne jublu gi liñ jublu woon ci euh, ñu xam ko mooy ñu xam ñaata nit ñoo bind lim bu ci ne ban euh, limu kaar moo fay jóge gox bu ci ne ñaata nit ñoo fay nekk suñu gisee ne am na kaar yoo xamante ne gox sàngam ak gox sàngam mën nañ koo séq ñu séq ko loolu yëpp mi ngi aju ci nit ñi bindu ak fi ñuy dikkee ak fi ñu dëkk ak fi nga xamante ne fa la ñuy jaar te loolu am na ci liggéey bu am solo boo xam ne commission bi def loolu fii def na ko kon waa daaw xaati bi si loolu laa leen di wax dëgg la mu am na benn laaj it mu mel ne rek ñi ngi laaj maanaam euh, Demba Diop xam nga dafa am nombre de places yoo xam ne si moom la war a jël euh, te xam nañ ne mbooloo mi jóge fi moom xajuñu Demba Diop loolu moom euh, maanaam li xam ne si mooy reste bi xam ne si du ñu mën a dugg ñooñu nan lañ leen préparé def loolu bu ñu xoolee comité d'organisation bi mm-hmm. dafa waajal ci stade Demba Diop mm-hmm. spectacle boo xam ne mm-hmm. guddi lay doon ak bëccëg moo tax mu doon lu am solo waaye itam jël nañu matuwaay yoo xamante ni mm-hmm. ñi nga xamante ni ñooy nekk ci biir mm-hmm. suñu demee ba xam ne lii la mën a jël mm-hmm. ñi nekk ci biti dara du leen ump ndax am na écran yoo xamante ne waajal nañ ko waajal nañu sax ci euh, son et lumière bi nga xamante ne ñi ngi koy def ni muy amee ci biir stade bi ni lay amee ci biti ndax xam nañ ni mbooloo moom gis nañ ne euh, waa Touba képp xaj ñu fa te Dakar taxul ñuy wax Thiès ñëwaguñu Ziguinchor Kolda Tamba Ndar ak ñi nga xamante ne ñoo tàmbalee jóge bitim réew waaye ñu xam ne daal mhm. képp koo xamante ne itam duggul ci biir mhm. waajal nañ ci biti luy tax dara du ko ump ci biir. dëgg conférence wu King faat Palace bi moom it. waaw ci tuuti ndax yaakaar naa foofu it euh, laaj bi sax ñëwoon na démb. Mhm. bañ xaw bañ tontu ko waaye euh, da mel na ne dafa ñor téléspectateur. waaw moom mooy li soxna maam Diarra Diagne laaj. ñu xam ne King faat Palace. ñetti niveau la. am na ci benn boo xamante ni mhm. kilifa yi ñoo fay ne mhm. muy kilifa ñi sëñ bi yebal mhm. kilifa njabootu sëñ Tuubaa gi kilifa diine yi ak ambassadeurs yi ñi nga xamante ni daal taxaw nañu taxawaay yu méngoog barab boobu di seen wàccuwaay am na yeneen saal yu ci des ñi nga xam ne ñoo ci topp waaye nag am na lu ñuy wax outdoor muy benn mbaa bu mag boo xamante ni li muy def ci nit Euh, saal boobu hmm. euh, dina ko mat ñaar ñooñu tam foofu des na fa mën a am mbooloo mu takku moo xamante ni hmm. dinañ mën a jëm ci diggante bi nga xamante ni moo am euh, foofu hmm. kon ñu xam ne loolu mooy li nga xamante ni jëm na ci Euh, barab yi mhm. ndax invitation di tax ñu koy def mhm. loolu rek lañ ci jublu ndax day am kilifa yoo xamante ni mhm. buñ ñëwee duñu mën a taxaw fenn duñu mën a xaar waaye ñu xam ne nag niñ leen sóoraale ni la ñu sóoraale mbooloo mi ba kenn ku ci nekk itam dara bañ laa mën a euh, ump ci li nga xamante ne mooy liggéey bi la dara ci li nga xam ne si euh, mooy liggéey bi ñu mel ne tamit daanaka rek ñi ngi dugg ci li nga xam ne si mooy pàcc bu mujj bi nga xam ne si buñ ci yegsee daanaka li ci des mën naa ne bëri bareetul lool ci émission bi émission bi nag nii la euh, su demee bay jeex euh, daanaka foofu lay euh, gën a neexee suñu mbokk téléspectateurs yi ñëpp